ni mooy tournoi Fall production geneen général mi taxaw moo doon nanguloo ci première manche yi waaye ñax jaruñu amoon moom it defet ci digganteem ak Bambaay kon tey mën nañ ñi général am na trois points Bambaay am na trois points ñax jaruñu ak nanguloo ku ne zéro point arbitre sifflé na arbitre sifflé na ñàkk jaruñu seen droite général seen gauche Bécaye arbitre sifflé na général seen droite ñàkk jaruñu seen gauche ñàkk joxuñu julu ci defet ki ko daan du kenn ku dul Pape Mbaye général ci victoire ki mu daan du kenn ku dul Ndongo kon général am na trois ñàkk jëriñu am amul dara général même na général door na. ñu xeex général ñu door. général ñu door général ñu door. général ñàkk jëriñu général da koy kaaw. da koy kaaw maa kaaw na am ñàkk jël na ko. général attention ñàkk jël na tànk ba am. laay laay la général dama doon action général ñu door. général ñàkk jëriñu def arrière na général ñàkk. général ñàkk général ñàkk général général ñu door. yàlla bu mu kaawoo yàlla bu mu kaawoo ñàkk ñu daw ah général daal di si de général ñu door jeex na jaxase ñu daan na ko. général dafa topp xeex bi. si yow dafa topp xeex bi. général dafa topp xeex bi. dafa topp xeex bi. teewul bàyyiwul ginnaaw xelam. lu wóor. loolu wóorul. kon ñàkk jaruñu général execo 3 point 3 point. 3 point 3 point